mbooloo mi ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di nuyu ginnaaw ma santee yàlla sant sama ñaanu waajur maa ngi sant quartier bi di sant sama waa koñ yi di sant ñëpp ñi nga xamante ni tee nañu di jàppale DG Siré Dia li may wax nag mooy damay wax ci victoire président Macky Sall mi nga xamante ni moom moo nekkoon président di jonganteeg ñeneen ba yàlla jox ko ndame dès le premier tour ki waral premier tour bi mu waral nag DG Siré Dia am na ci doole parce que Abdelkader Ndiaye tey bu ñu ko gañee tey yàlla ak DG Siré Dia moo fi ne bu ñu gañee gox bi tey yàlla ak DG Siré Dia moo fi je ne ñu gane Abdelkader Ndiaye jël jël ndam li teg ko ci loxoom mu jox ko président i Sall lu waral ma ne Abdelkader Ndiaye moo ko moo ko gañe mooy dafa def dooleem def fi ay moyens ñëw fi ak doole DG Siré Dia mooy mu daf ñoo dooleel au niveau de Thiès Ouest nekk Thiès Est ñëw tëgg samb fi ndëndam ñu jàppale ko mu ñëw fi fekk fi nag fief bu dangereux moom rek moo fi gañee Abdelkader Ndiaye ñu teg ko ci loxo mooy DG Siré Dia mu ngi ci financement femme yi ba ñii ma gis samay femme nii financé na leen lu am doole DG Siré Dia mu ngi ci jàkka yi Mbour 1 DG Siré Dia même église Marie Reine ñi fi voté tey dafa taxaw laabe bi dafa taxaw publiquement ne DG Siré Dia moo ko jàppale tey église Marie Reine tey bu amee toiture tey yàlla ak DG Siré Dia te ñay jàngee mees ci école Abdel Marie Reine ñoom ñoo voté Abdelkader Ndiaye bi te DG Siré Dia moo fa def loolu deuxième point bi troisième point bi mooy même Mari Ngoone mi nekk séeréer noonu keroog bu muy def anniversaire am DG Siré da cee def loxoom mu wéy ko fi nag ASC jànkeen ku xam ASC jànkeen xamoon na ne ASC bu dee la keroog bu ñuy finaalu DG Siré Dia moo ci def loxoom ñun ñëpp def nekk benn bloc ma ànd sama jigéen yii and ak sama pao jàkka yi ak sama xalé yi and ak sama jeune yi and ak sama mag yi and ak sama raq yi ñu sotle ma ma gagné afi école Abdelkader Ndiaye mi nak Abdelkader Ndiaye bu fi DG ju duggé ci législatif bi la fi am ndam kenn mosu fé am ndam mu dolel ma digg Thiès dolel ma Mbour 1 dolel ma sama koñ kon bokku ko kenn ndam li bokku ko kenn. du ma Mademba moo ko gañe du Masamba moo ko gañe DG Siré Dia moo fi def loxoom def fi dooleem guddi kere bu mu ñëwee fii ma solo ko ay caq séeréer ne woon naa ko école bi danga ko am ndam te école bi sax séeréer yooyu kenn du ko sol ko amul defet Macky Sall bu mu fii ñëw deuxième tour ñun ñoo ko solal DG Siré Dia caq yooyu laa ko solalaat mu gañe fi école ndam ñu séeréer kenn du ànd ak moom di wor parce que suñu gàmm la dañ koo jàppale te yàlla tax président Macky Sall nag dafa xam ne carrément DG Siré Dia moom moom Thiès gisuma kenn ko moom Thiès ku dul DG Siré dafa war a doole suñu directeur bi jeunes yi emploi ba ci man mii ku ma xool xoolaat ma bu ma mënee taxaw am baat suñu kër gii ma nekk bu ma mënee am baat ci koñ bi bu ma mënee am ci sama baat ci mbokk séeréer noon yi yàlla ak DG Siré Dia moo ko may ku ci nekk xamoon na ma waaye bu mu ñëwee dafa maa teg ci place jàppale ma dooleel ma dooleel samay jeune dooleel jumaa yi dooleel jàkka yi dooleel même àtt su séeréer noonu yi moo ko fa dooleel kon DG Siré Dia boo xëyee ndam li moom moo ma bokkoo kenn ku ma wedd sama artiste yaa ngi nii sama femme yaa ngi nii fii kenn ñeme fi woon def dialogue islamo-chrétien man maa fi def conférence boo xam ne dialogue islamo-chrétien teg laabe bi fii teg imam bi fii ñu organiser ko parce que DG Siré moom moo ma dooleel fii ku wax conférence musulman yee tax waaye man maa taxaw fii ci koñ bi catholique yi ñu ngi taxaw jullit yi ñu ngi taxaw suukaru nga lax moo ci baax yemul ci jumaa yi kese de kaara Popenguine moo ci baax ku xool Popenguine bee DG Siré Dia def na ci loxoom def na ci dooleem carrément DG Siré na ñu ngi koy gërëm di ko sant may wax président Macky Sall tey bu ñu nekkoon DG Siré Dia moom kese moo fi nekk te yàqaluñ ko fii moom moo koy gagné moom mooy jël pouvoir bi par président Macky Sall da koo wóolu xeebul kenn xeebul julit xeebul catholique xeebul mag xeebul ndaw kon vraiment ñun ñëpp dañu leen jàppale jàpp dañoo jël victoire ba jox ko DG Siré Dia kon DG Siré Dia tàccu leen loolu ma wax lo rek la amone lo xamanteni wax ko ndam ni du Mademba du Massamba politiciens yi wax rek lañuy def waye DG Sirédia bu wax ji bare mu reculer bu jëf ji bare mo ci gën kon lo gis nak DG Sirédia ñu koy gërëm di gërëm néna ko sama gam nga à chaque fois DG Sirédia Dia chaque jour dama ko sama gam nga man séeréer la mu tukulor té bu taxé ñu gañ école Abdel Kader Mbaye Ndiaye mi mom mom mom mom ko ji. kon du ma reculer du ma dellu gannaaw lépp lu may def dama koy def en tête haute je parle fort et bien man moo ma sagal sama diggu koñ bii guddi ak bëccëg xeebul catholique xeebul musulman xeebul jullit xeebul kenn loxo ma ngi ci moo baax ci église yi moo baax ci armeel yi moo baax ci jumaa yi moo baax ci ASC e yi lépp moo ci baax kon DG Siré Dia Macky Sall na la jox njukkal jox njukal njukkal bu mu la war a jox mooy daf laa war a teg suñu wet lu mu la doole loon mu gën la koo doole bu defoon un mu triple ko kon DG Siré Dia ñu lay gërëm la sax ñun daal li lay ñaanal yàlla na la yàlla mbay wër may la guddi fan ak wér gi yaram yàlla may na li nga bëgg yàlla na ko yàlla def te de Macky Sall ñu ngi koy ñaan mu taxaw ne doole dégg nag Thiès ku fi ne wiiw DG Siré Dia moo tax mu ne wiiw maa ngi ñaan yàlla yàlla jàppale ko may ko guddi fan ak wér gi yaram loolu laa amoon lu ma ciy wax waa salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum ginnaaw bi ñu jullee bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi sant sunuy wayjur sant sunu sëriñ sëriñ Saliou Mbacke Bara Fallou ñu ngi nuyu Sénégal di nuyu Afrique di nuyu le monde entier à travers ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan man yaakaar naa ne dootuma présenté sama bopp man la Modou Faye auteur chanteur compositeur dëkk Thiès rawatina juddoo ci koñ bii ngeen xam ne yéen ñu def déplacement fii laa juddoo fii la ñu yaroo fii lañ fekkee baax ah tey jii bu ngeen gisee toogaay bi ni mu demee sama maam day faral di wax ni bu lëg lekkee olom na ko gërëmee coy te àdduna ku la defal lu baax boo ko waxul buy lim say noon dala ciy boole. c'est la première fois de ma vie en tant que quelqu'un qui vit au monde de l'art en tant que un porteur de voix tey c'est la première fois ma toog jàkkaarloog ay euh, caméra di wax lu jëm ci politique lu yëngu nag dafa am lu ko yëngal. olof nee na lu yëngu am na lu ko yëngal bu ngeen gisee tey mu demee ni dama juddoo cees cees képp ñor ma taw taw cees naaj bi tàng cees tremblement de terre lu mënti xew Thiès ay ñibbisi te Thiès li muy yaatu yaatu yaatu am koñ nag boo xam ne Mbour 2 lañ ko tuddee Mbour 2 li muy yaatu yaatu am ruq boo xam ne fa la dëkk donc lu mu métti métti métti fii laay ñibbisi ci sama carrière artistique tey jii duñ ci wax dañuy wax ci li nga xamante ni moo intéressé koñ bi ak ki nga xam ne ni moom la ñu yàlla booleel mu suñu diggante ak moom nag doon bët la cay weex ak la cay ñuul benn mënta dem bàyyi moroomam tubaab nee na rendez à César ce qui appartient à César donc tey bu ñu fi toogee tey ji am audace toog demuñu te 2STV bi demuñu benn télé national demuñu TFM demuñu benn télé national lu dul toog jàkkaarloog aset di feddaliwaat suñu kóllëre suñu diggante ñun ak le directeur général de la poste muy monsieur s Dia tey ji war nañ koo def tey nag wax. ci beneen cas damay wax ci jigéen ji nga xamante ni mooy man une dame de fer laa ko tuddee jigéen joo xamante ni jigéen ju mën góor yàlla def ma bokk ak moom koñ bi ñu juddoo fi yoroondoo fi màggandoo fi bokk tamit ay objectif bokk ay opinion am fu nu jël suñu bët teg ko fa ne dañ ko bëgg a atteindre te ci kattanu yàlla ak mbaaxam kenn tax ba duñu ko atteindre yoon bi metti woon bëri xaaxam lool ñii di galgal ñii di kii waaye mus ba ñu yàlla booleeg le directeur général de la poste muy monsieur Sira Dia yaakaar naa ni koñ bi bu nekkoon ci un jëlee na ko ci un yóbbu ko ci dix pour cent te sa maam nee na ki yor sareet sareetu fas yóbbu la ba ne la daj kaa ñu dem dakaar bu la yóbboo ba Tëngéej bu la nee su ma yoree Range Rover di nga yegg Dakar war nga koo gëm Marie Diouf lum ñu woo ñu wuyu victoire bi nga xamante ni am nañ ko ci biir école El Hadji Abdel Kader Ndiaye ma damay dellu soo ci ginnaaw bi ñu nekkee ci caravane bi bi fi DG Sira Dia ñëwee lañ ko Marie Diouf waxoon dafa feddaliwaat li ndax ñun ñom ñi ñoo defon mobiliser wu ginnaw campagne tak seeni sœur moma groupement bi nek ci ginnaw diko accompagner tak seeni ay sœur di def porte à porte mais profito occasion bi di nuyu ñi nga xamanteni ñom lañ doon déranger ci seen kër yi ku ci melni ay tonton Babacar Tine ku ci melni famille ku lim dëgg ku lim sax da nga dul matal donc porte à porte yo ñu doon def te àdduna yëpp teg ci seen bët mais ñooñu kese ñoo ànd ak mari Diouf mii gagné école El Hadj Abdel Kader Ndiaye te du def ñu xam nga def rek dañ tam ñu da koo tànn mais da koo def defaat ko kon mari Diouf gàcce nga laama moom ak ñi mu àndal. politique nag politique nag dañuy faral di wax ne lu waaye doon xool xam-xam li ko gësatoo ko la doon xool ci yow moo voyage waaye la ngay xool bougéwul ndax. ndaw lu guddi bu ñu koy séddale ku ne da ngay yaakaar ne yaa ci ëppale ba tey ji coow li bari na ñëpp ñu ngi wër di wax ni ñom ñoo gagné El Abdel Kader Ndiaye mais mën naa barki borom Touba mi ma yaakar aduna ak alakhirah ni mari Diouf limu mu andak andak ñi ci tok ci ginnam keroog ñu yewu presque 4 heures du matin ba 4 heures du matin encore ñukoy koy fonctionner ñun ñoo juddo ci koñ bi yoro ci koñ bi fekk mbax ci koñ bi lepp lu ñu daw am ko ci aduna bi indi ko ci biir koñ bi kenen di joge fee di ñu gagnal suñu koñ bi ça sonne très mal à l'oreille du deug wa na ginnaw des fois bëgg bëgg mel ni mburu sax ku mu tax a dugg fa mburu jóge soo génnee mburu da gën dañ koy wax tey dafa noonu wax ju du bëri waaye foog foog ñu am lu ñu ci ñambaas ndax monsieur Siraja daf ñoo fekk sunu tante yi sunu yaay yi sunu koñ bi ñu am fu nu tolloon ginnaaw yàlla ak mari Diouf mi mari Diouf bi mu ko gisee bu ko neexoon mu yemale ko ci boppam mais yemalewu ko ci boppam dafa ñëw bokk ko ñëpp liggéey bu extra extraordinaire bi muy def fii Sénégal teg ci seen bët maa ngi nii nag kuy làqatu du ko wax man Mamadou Faye auteur chanteur compositeur

les femmes ménagères ñun de bu ñu yàlla mayoon yeneen ñaari Siré Dia biir Thiès waxuma Thiès sera comme Paris waaye Thiès sera comme New York encore une fois de plus c'est la première fois ma toog ku nekk yàlla boole na ak moom ci àdduna Thiès kilifa gu nekk woo na ma téléphone seet naa la am na lu ñu waxtaane ak yow mais barki borom Touba Mbacké bi ñuy rendre hommage Siré Dia gisuñu ko dégguñu ko xamuñu ko mais dañuy dem ci hôpitaux yi di dégg li muy def di dugg ci jumaa yi di gis li muy def. di dem ci ci ci paaw grand place yi di gis li muy léegi di gis someri encore parce que chômeurs yi dafa métti woon Thiès. chômeurs yi bu bu nekkoon à cent pour cent tey jii si la dimbali nu tey jii am ñoo xamante ne suturaal na leen ba bu doon weer dee dee ñu am juróomi dërëm mu yem ci ñoom suturloo ko lu jin njaaga monsieur Siré Dia moom mooy njaag léegi ci biir loolu ci biir loolu ci biir loolu ma daan ne ñu mel nii de war nañ ko médiatiser donte xaw ma ko boobu ay leader politique yu bëri ñu ngi topp sama ginnaaw li may wax waa koñ bi xam nañ ci dara ku ne fekk na ma fii ma xewle di tele Sénégal yëpp ñëw ñu ñëw defal ma ay teraanga waaye ragal péete day xañ a wërsëg man du Faye maa toog tey di ko expliquer. ci biir loolu ma ne dinañ ko rendre hommage ndax ku mel nii jar nañu médiatiser ko. Mhm. ba li war suñu digg ñun ak moom yàlla def ci yàlla def ci lim ci def. Mhm. fi may clôturer wax ji parce que wax ji tey warul bëri. Siré Dia kuy wax ci moom tey jii nee naa li duuf ci nag bi xajul ci cin te du xaj ci cin sax xajul ci benn biir président Macky Sall yow mi nga xam ne yow la yàlla def ngay sunu njiit yow mi nga xam ne lépp ku nangu lu yàlla dogal doo sonn sa xol di jeex waaye ku ku ku bañ di yàlla dogal di nga sonn trop yow mi nga xam ne yàlla yow la jël teg la ci ñu ngi lay ñaan kii nga xam ne moom mooy la directeur général de la poste muy monsieur Siré Dia loo ko doole lool nga yokkaat ko ñun waa jeunesse su bu ñu la gisul sax tant ñu ngi yow di jàkkaarloog monsieur Siré Dia suñu xel day dal bu ñu tëddee dañuy nelaw ba yàndoor boo di la ñaan ñun jeunes yu yi lépp loo xamante ne tey woon nga le directeur général de la poste bu doon benn yokk ci juróom-ñaar téeméer muy juróom-ñaar téeméer ak benn ndax dawul daayiwul du mooyiwul bokkul ci leader yi nga xam ne dañ lay fekk si soxla la utiliser la bu ñu paree boo leen woo doo leen jot amul n'importe quelle heure boo xam ne boo ko woowee doo ko jot Siré Dia ngay gis muy ñëw nit feebar mu dugg ci këram toog sa wet waxtaan ak yow defal la jàppale la ba yàlla tegaat ci yoonu siraatal mustaqim kon ñu ngi lay ñaan ki nga xam ne mooy directeur des ñun jeune waa Thiès man je parle au nom de tout la jeunesse thiessoise ñun encore une fois de plus jeune Mbour 1 yi ñu ngi lay ñaan nga gën ñoo doolelaat suñu kilifa gi ñu ngi lay ñaan chaise bi nga xamante ni yaa ngi nii di ci toogaat yàlla na la jig ñu ngi lay ñaan yéen Don, yu teeñ maanaam mu don musor bu bu tegu ci kaw bop yéen bi oyof lool. ndax it coow li bari na won na lool. waye sa mam de tubaab defar ni c'est dans les moments les plus difficiles de sa vie que l'homme réalise que le destin lui réserve. encore une fois de plus félicitations encore une fois de plus félicitations encore une fois de plus félicitations. merci. maa ngi tudd Seynabou Dieng ginnaaw yàlla maa ngi sant sama ñaari waajur bi ma nga xamante ni ñoo ma may ba ma mën a am doole bu mën a taxaw fii bu loolu weesoo damay wax au nom des femmes wax au nom du groupement di remercier suñu présidente bi nga xamante ne nii mooy Marie Diouf Ndione mi nga xamante ne nii moo ñu boole boot ñun jigéen ñi ci fii yëpp parce que dafa nekk une dame d'affaires bu nga xamante ni nii vraiment lépp li nga xamante ni si Siradia yëkkati na ko teg na ko ci loxoom rek mu bëri mu néew mu tuuti muy matériel muy xaalis dina ko indi teg ko ci kaw table bi bokk kook ay jigéenam mu nekk femme bi nga xamante ne nii xol bi dafa yaatu dafa jàppale ay jigéenam financièrement matériellement logistiquement bàyyiwul dara bu ñu paree ci loolu dafa nekk femme bi nga xamante ne nii bàyyiwul troisième âge yi mi ngi jàppale troisième âge bu gisee malaat ci koñ bi dina dem jàppale ko su gisee ki nga xamante ni nii soxla na bénéfice pour dem hôpital dina ko jàppale financièrement dina ci def dooleem dina ci def tànkam dina ci def yitteem dina ci def jotam jigéen ñi toog fii kenn ku nekk xam nga ni fekk li may wax su fekkente ni du dëgg kenn ku nekk yaa moom sa bopp neel li may wax du dëgg ku ci am soxlay xaalis bu gisee ni yitte woo nga ko te muy dëgg ci yow dina la ko jox ku ci am soxlaay matériel bu gisee ni dëgg la te yitte nga ko dina la ko jox nga koy fay nak du lum lay du lum lay may nak parce que nit ki boko yombalé mbir bamu uppit ëpp it na naa rek saa mako soxla dina ko am dina la ko jox wax la ning koy liggéeyé wax la ning koy fayé nga koy fay nank nank ba kéro ngay mom sa alal ba fi am ci nga ni dañuy karalé seen nek dañuy peinture seen nek dañuy leen jëndal carte installé leen euh, compteur électrique seen kër ñu am seen matériel yépp ci bir kër gi jigéen ñi ñu dara matériel bi ci biir kër gi yépp daf ñu koy jàppalee jigéen ñi am ko di ko teg seen biir kër di ko liggéeyee su demee eh, côté boobu ñu dem ci côté éducation doom ji nga xamante ni nii bu école ubbee am nga problème fourniture scolaire dina ci def kemta lay kàttanam dina jël xaalisam wala mu jël xaalisu groupement bi mbooloo mi di liggéeyee jëndal la trousse scolaire jox la nga ànd sa doom dem muy def ay suivi scolaire bu ñu jógee côté éducation wax naa côté santé sànq dañuy dem côté religion côté religion bi nga xamante ni mooy elle la seule bi nga xamante ni nii moom moo fi njëkk a taxaw appuyer femmes yi pour ñu def conférence dialogue islamo-chrétien te muy dëgg indi abbé bi indi imam bi indi ñu toog ku nekk wax ci sa religion mu nekkoon initiative bi nga xamante ne nii ñëpp ñoo ko rafetlu ñu tëree ci ay leçon de morale yi nga xamante ni kenn ku nekk bénéficier nga ci ñu dee kenn euh, abbé bi wax delloo si ay mbokkam ci seen diine euh, <coughs> élimaan bi delloo si ay mbokkam ci seen diine ñu àndandoo xol yi nekk benn te budul lool sax ñu dañoo amul sax problème mu religion fii ci koñ bi parce que boo xoolee groupement bi fii majorité bi yëpp ay chrétien la comme ni mu ko waxee sànq. école Abdel Kader majorité bi fa euh, voté yëpp ay chrétien la parce que fii majorité population bi ay chrétien lañ kon defe naa bu ñu waxee loolu dañoo bëgg DG Siré Dia gën a gis moom li muy liggéey xam ni moom lim koy jox mi ngi koy jël di ko wàcce ci basam di ko jox ay femmes di ko jox jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci quartier bi ñu ngi ciy faj seen soxla lekk ko faj bàyyi boppam DG Siré Dia nag lu mu ko gën bu ko jàppale woon benn mbaa ñaar na ko dollil te xam ne lépp lu mu ko jox rek dina ko indi ci famille dina ko indi ci jeunesse bi nga xamante ni ci koñ bi nit ki nag nga koy dimbali di ko jox xaalis dafa neex torop waaye nga koy jox li nga xamante ni nii moom lay teg moom lay gis di ci teg bëtam ñun moo ñu gën a yitteel xëy ñun ñëpp bëgg nañoo xëy dem liggéeyi poste waaye ñun ñëpp mënuñoo xëy dem liggéeyi poste quartier bi nga xamante ni nii moom mooy domaine intervention fi la dëkk te bëgg na ñëpp santi seen bopp ci li muy liggéey moom bëgg na ñëpp santi seen bopp ci liggéey bi Siraja di décentralisé dañoo bëggoon DG Siraja bu nga xamante ne nii am na matériel bi nga xamante ne nii wala ay œuvres yi nga xamante ne bëgg na ko mën na koo def ci quartier bi wala ay centre de formation wala ay matériels yi nga xamante ni nii femmes yi dañ ciy mën a gis seen bopp mu indil ñu ko fii ci quartier bi teg ko fi bu dee ay centre de formation mu indil ko fii ci quartier bi bu dee ay machine à coudre wala ay moulin yëpp mu tegal ñu ko fii jigéen ñi ci santi seen bopp parce que nga jox ko nit ki xaalis aussi da koy génn lekkee ko noosee ko xaas bi jee après bu ko bëggee fay-fay bi nekk ay problème ñun daal matériel la ñu gën a sentir DG Siré Dia jàppalee ko Marie Diouf mari Diouf jàppalee ko ay femmes am jàppalee ko jeunes yi ci quartier bi ñu gën cee gis suñu bopp Euh, Sénégal jëm kanam Macky Sall su ko neexee sax toogaat encore yeneen euh, moo xam lu ko neex waaw ndax daal ñun daal ñu ngi ci ginnaaw DG Siré Dia waaw loolu ñun daal ñu ngi ci ginnaaw DG Siré Dia ñu ngi ci ginnaaw Marie Diouf Marie Diouf ñu ngi ci ginnaaw DG Siré Dia merci